ñi nga xam ne ñooy délégué yi fi jot a jaar kenn ku nekk jot nga cee sànni sa kàddu am nga jëf joo ci war a def waaye boobu ba léegi autorités yi dañu ne ci miig mel ni day problème boo xam ne du problème bu rëy te dañoo gis ni problème boobu tey jii dafa tere étudiants yu bëri ñoo am épanouissement bi war fii nga xam ne mooy campus social bi war leen a dimbali ngir ñu mën a dem yeggale ci seen i jàng fële ci UFR yi ndax boo xoolee lii di étudiants yi dañuy di xëy sax des fois di dem ci UFR yi te duñu am ndox mi nga xam ne moom la ñuy sangoo dañuy xëy di dem ci UFR yi te duñu am sax ndox boo xam ne moom la ñuy naan parce que dañuy am problème eau potable ndax lii di ci réservoir yi nga xam ne moo fi newoon sax boo xoolee ñun waa commission sociale balaa étudiants yi di ñibbisi ci loolu di pandémie bi avant ñoo wax waxi réservoir dañ ni autorité bi lii nga xam ne mooy château d'eau bi nga xam ne tabax nañ ko boobaak léegi léegi mu am ñaari at te ñu ne woon kat moo waroon a dindi benn yoon li nga xam ne mooy problème ndox boobu noonu nañ fexe ba château d'eau boobu noonu étudiants yi mën koo jëriñoo waaye boobu ba léegi gis nañ ni autorités yi defuñ ci lenn ngir dimbali étudiants yi ngir ñu mën a amaan ndox boo xam ne mooy ndox boo xam ne dinañ ko mën di naan waaye dinañ ko mën di jëfandikoo tey ji ngir seeni besoins yi nga xam ne moom la ñuy am fii ci université bi waaye ñu gis ni booba autorité bi dafu ci waxu ci ba mu ba ñu ba xamni dafu ci waxu ci te ñu xamni université bi dañ ko wara a wat parce que dañu nekk ci situation bo xamni dafa xaw compliqué ñun ñu dem ci mom ci li nga xamni ne la dans une collaboration ne ko légui kat liñ gis ba gis moy que ni comme château d'eau bi parégul jëndal ñu ay réservoir yu bees nga def ko ci village yi nga xamni gis nañ ni ñom dañuy am problème lu ëpp booba nak mu doonon village J ak li nga xamni modi village N village O HI ak L ak loolu nga xam ne moom la ñuy woowee centre médical étudiants dafa dem di fa fajoo waaye ñu gis ni bañ ko jëndee léegi mat na ñaari weer mu am lu ñu metti loolu ñu gis ni jënd nañ loolu lu mat ñaari weer teg ko mu tegaane kenn jéem koo defar teg ko ngir étudiants yi mën koo jëfandikoo te booba étudiants yi ngi am problème ndox mu metti étudiants yi dañuy xëy di daw fu ne di fa wuti ndox te ñu fàttali ni ndox mi li tax mu gën a am solo mooy ci la ñuy jëfandikoo pour naan ci ndax lii di ci réservoir yi ci bëri dañ leen a demandé woon ñu def ci curage ngir ndox mi mën a nekk ndox potable étudiants yi di ko mën a naan te ñoom booba defuñu ko donc ñu gis que ni yabaate mënul weesu loolu waaye it bañ a jox cër ñi nga xam ne mooy étudiants yi nekk ci université yi mënul weesu loolu daanaka nag autorité bi souvent day làqatu ci loolu nga xam ne la naan problème mu ndox dafa am ci dëkk bi yëpp ba dul indi ci loolu nga xam ne mooy problème mu ndox étudiants yi fàttali ni gaa problème mu ndox mi bu amee ci dëkk bi yëpp fii ci université bi dafa am particularité particularité mooy étudiants yi ak ndongo yi dañuy xëy di jàngi donc root googu ñi nga xam ne dañ koy war di mën a def bañuñu ko waaye boo seetloo ba seetloo ndox mi ay booru 3 heures du matin 4 heures lay ubbi ci ndongo bu war a xëy jàngi 8 heures leer na ni 8 3 heures du matin 4 heures du matin du ñu mën a nekk ñoom ñëpp di rang ngir nga xam ne mooy seen i Euh, lekk te doo fay ci biir restaurant yi ñu tegal ko tegal ko li nga xam ne mooy autorité bi ngir fàttali ni dafa war a indi ay saafara ci problème ndox mi dafa war réservoir yooyu mu jënd mu installé ko waaye bu weesoo loolu

dina ko dolleegum en attendant donc mu yokk ci yeneen village yi des li nga xam ne mooy réservoir yi ñu doon laaj ñu installé ko woote na jox ndigal ñooñ nga xam ne ñoo nekk division technique ngir ñu defar ko donc boo xoolee yeneen réservoir yi effectif na tey ji ci installation mu des loolu ñu jëm ci château 2 bi loolu ñu jëm ci château 2 bi nag woo na ñooñ nga xam ne moom la ñuy woowee waa Sen'Eau te ñu dénk leen tey ji patrimoine réew mi ci ñu ndox mi li tax mënul fexe ba ñu am tey ji satisfaction ci suñu château d'eau bi mooy dafa am problème mu production lii di ndar dafa am problème mu usine yoo xam ne mooy produit ndox mi ngir jébaane ko jox ko tey ji goxee yeeg yi ñu mën koo jëfandikoo ci ni mu waree te bi ñu toogee ci loolu nag ba xool ko gis ko ci la ni vingt mois lañ ñuy laaj tayji ngir ñu xaar ko ngir ñu mëna implanter usine bu bees ngir mëna doli ndox mi parce que bo xolé UGB fi mu ne 250 mètres cubes lañ koy ravitailler en jour té bo xolé li ci ëpp guddi gi lañ ko koy jox motax tax ci jëriñu ko du bari donc ñom ñu laaj ñu 20 mois ñun déjà ñuy wax ni xaar loñu ñen euh, xaar loñu ñaari fukk weer lolu xawna sori xawna sori ci problème bo xam problème nit ki la c'est-à-dire c'est une chose d'ordre primaire comme on a l'habitude de le dire ndox du lu mëna ñaq comme ni ñu koy tàmmee di wax faaw tey ji autorité bi jug ci indi célérité ci action wu usine boobu noonu ñu war a teg ngir tey ji waa UGB ak tamit population wu Saint-Louis bépp waaye rawatina étudiants yi ne fi war a xëy di jàngi donc ñun ñu gis ni ngir loolu yëpp dajaloo te autorité am na lu mu diggee am na lu ñu gis te am na leneen lu ñu koy laaj mu waral ñu suspendre mot d'ordre de GST boobu fan ak ñeent fukki fan ak ñeent ndax mooy li ñu autorité bi ñaan ngir jënd réservoir yi installé ko donc ñu ngi wax tey jii ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu muy étudiants yi mu ñi nga xam ne ñooy parent yi mu ñi nga xam ne opinion bi nga xam ne mooy déglu ñu ngi interpellé ñu ngi wax ne autorité bi moo ñu fekk tey jii ci mouvement bi ñu ne xamal ni ñu ni pare na pour indi ay saafara pare bu mu indi pour indi saafara yooyu am na ay liggéey yu mu joxe liggéey nag ñu ngi koy déglu te ñu ngi ko may fukki nga xam ne mooy réservoir yi jënduñ ko installé wuñ ko dinañ dellu ca lañ newoon te bu weesoo sax dinañ mën naa am ñu teg ci yeneen yu gën a metti ngir ñu xam ni problème bii ñun fawuñ ci kafuñ ci reewuñ ci ndax ndox du lu mën a ñàkk ci université d'autant plus mu doon ay étudiants yu war a jàngi waaye loolu yëpp tey buñ ci ñëw tëj waxtaan bi te tey jii laaluñu ci yeneen problème yi nga xam ne mu ngi ci université autorité bi jël ci ay engagement boobu ba léegi te defu ci lenn yu ci mel ni tey jii loolu nga xam ne mooy problème hébergement bi tey université Gaston Berger de Saint-Louis néeg boo dugg bu daan am benn wala ñaar am na juróom ba juróom benn nit lu ko weesu sax tey jii boo wëree sànnaar yokk nañ seen i prix euh, euh, loyer ndax étudiants yi dañ koo loué loué bañ xam ni tey jii dañ koo soxla te tey jii boobaak léegi ñu am benn village bu ñuy woowee village Q bu nekk fii tabax gi pare te autorité bi war koo mën a réceptionner boobu ba léegi jëlu ko ndax ay problème yoo xam ne ñoom ak entrepreneur bi ñu bëgg loo la xamal ni ñun ñi nga xam ne ñooy étudiants yi suñu yoon newul ci problème yi nga xam ne mooy na def lépp ba jot ko nañ def lépp ba joxe ko étudiants yi mën cee dëkk ndax soxla nañ ko lool ci jamono ji fi ñu beneen problème bi nga xam ne dañ koy waxaat muy problème tey ji assainissement bi daaw suñuy ñooñ yoo xam ne waalo gën a aay tey jii nag la ci autorité bi gën a noppi te boobaak léegi kat xam nañ ni yëg nañ ni tey jii ka xam ne mooy directeur ONAS wax nañu ni am na tey ji projet boo xam ne tegoon nañ ko daaw projet boo xam ne état bi moo jëloon engagement dina joxe premier partie bi ngir mu mën a démarrer waaye boobu ba léegi gis nañ ni dara tey jii li nga xam ne moom la état bi war a def defu ko ci